fii mu xuus jàll kenn jàllalu ko bu mu àgg fu mu toll nii donc jàmbaar dëgg ni nii tey bu continuer si yoon bi yaakaar naa li mu bëgg fu mu fekk bëtam yàlla mun na ko fa may loo gis si àdduna rek gëm-gëm si am solo te booy bi dafa am gëm-gëm lu ndaw la woon nag billaahi lu ndaw a ndaw la woon xam nga muy ba ñëw àgg fu mu li may wax rek li des si carrière am ko si yàlla may raw njortam mais tamit tamit mu jëm dafa mel te démb naa Max Mbargane mu ne sa ak Gris ay promoteur yu ko bëgg mhm. may laaj entre Lac 2 ak Gris tey boo doon ñoom ñaar tey sama choix bu njëkk nag mooy saison ren bi ma bëri si mhm. bëri si nag weesu fu mu si mën a doon si ñoom ñaar bëgg naa loolu mooy sama choix waaw mooy ma bëri si saison bi parce que ñoom seen carrière mu ngi dem te ñoom ñu ngi entraîné te entrement bu ñu def toog année boobu bëriwul ñu ngi per giri foofu la doon wax xaw ma dégg ngeen ko kon tey nañ ko jàppale si loolu man bu dee man moom pare naa waaw dëgg fa yàlla mu ànd guerre bu ñëwee tamit pare naa waaw. maa ngi leen di nuyu Baye Fall di nuyu ñëpp di ziar ñëpp dañuy revenir tuuti rek le 15 janvier bi passé Zarko ak ki nga xamante ne moom mooy Ada ñoom ñaar ñu bëri si Ndor bëri si Funda bëri si Fayda waaye après combat ñu dégg ñu CNG daf leen teg ay daan. sanctionné ñaari mbër yi ku nekk mu war a toog un an ferme bu ñu bokk si ñaari xale yi nga xamante ni gox mooy topp seen ginnaaw waaye si ñaari xale yi nga xamante ni seen ay waajur dinañ yaakaar en tant que porteur de voix ki nga xamante ni saa yu defee message sensibilisé askan bi dañ koy bàyyi xel dañ koy dañ koy wéree tey loolu bu ñu ko dégg xamante ne yi wax xamante ne loolu mooy gañ PM hmm. dañ ko si war a jàppale bu baax ñu ñaan yàlla CNG bi nga xamante moom moo yor ndogalam gën ñu xam règlement bi waaw ñu ko ñëpp di defee rek dañ leen jàppale ku xam ne seen i doom lañ seen i sët lañ seen i lañ jàppale te indiwaat nañ si làmb ju baax pour man dama sob sax moo tax ma la koy laaj waaye wala ma ko laaj mhm. sa diggante waa ISBET daa ngi gis na ñu yàgg waa ISBET nga am benn genre yéen ñu doxin diggante wala bu mu juum mhm. est-ce que mën nga expliquer lan moo waral loolu donc côté boobu nag man bu ma sa su ma sañoon dañuy wax si làmb ba pare peut-être hmm. dinaa la si tontu waaw bu ñu jeexalee si làmb dinaa la si wax ko su duggee si côté actualité dinaa la si wax. am na incha euh, question bi ma lay laajal mooy sa diggante hmm. est-ce que Siteu pare na pour bëri Modou parce que Modou Lo ñoo ngi wax diggante Modou Lo Boy ba léegi gisuñu combat bu taxaw hmm. mais est-ce que Siteu pare na pour Modou Lo. waaw Modou Lo sama grand la. muurloo ñu bëri dañ may laaj ay question muurloo muurloo muurloo muurloo sama grand la nekk grand boo xamante ne eh, depuis ma ko xam ba léegi ni ku baax la dama ko yàgg a gëm dama ko yàgg a suivre parce que dama am sama benn doomu baay boo xam ñoo ko paap mais depuis ñu nekk xale lañu gis a gisee mais bi ma ko gisaatee ma gis ko muy supporté muurloo man tamit si noonu laa ko mujjee di xam nga mais si yooyu lañu ëppoon di ñu gisante temps boobu parce que ay combat muurloo lañ doon am temps ma génn ñu daje ñu kadeer eh, dem ba marié nga xam muurloo loolu nekk sama fierté nekk gëm-gëm boo xamante ne ma sàmm ba tey mais sama diggante ak yow c'est la même chose comme li ma la wax si Boña sama mu mosuñu ma si wax nii mosuñu ma si wax naa boo ko bëggee xam ne saako xaalis nga dugg suñu kër. dégg nga waaw noonu la demee nag. ok ba tey Fallou bi muy dafa bëri woon ak guy gi 29 avril 2018 yaakaar naa bi combat bi passé guy gi ak ba tey guy gi moom nee na bal bi ngi ci say camp du la tëpp parce que moo la daan. kan guy gi waaw. waaw moom daan moom wax dëgg fa yàlla. mais man moom échange xooluma ko moom xooluma bi guy gi moom war naa xam ne man bu ma góob moom dama sëb sax làmb parce que mu manqué na expérience boo xam ne sa bopp dafa toj nga ñëw bëri si. yooyu yëpp ma bëreeg moom ba pare dem leen ngeen si renal combat si ak ak nit bu baax lépp mën maa ko def ba pare am blessure boo xamante ne mënu ma ko sa expliqué la sama bopp lañ tëj CSAP waaw kon foofu laa ci yem ba yàlla def amul mal man maa ngi ci leneen maa ngi teg sama bët feneen ne moom xool na la jël Zarko tarkindaa boobu waaw loolu guy gi daaloon na na Zarko mais Zarko si te sa beneen question mooy que ni la dëggee de ñu gis mbër mu naqaree bëree la. boo xoolee euh, gëj na daanu si ay at. tey ñu bëri di ko maytu ba ci ku ci mel ni kii di bi ñu ko waxee sax man ma ko wax def na mu bëri maa ngi la dëggee tey ñu gis nga am yow nga nga am potentiel la dëggee su paree pare naa est ce nga bër bi nga war a jël ci kaw neen na day rasu du bëree. lépp lu fay am adversaire am koy def nga nan nga bëgg a bëri la dëgër bu fekkee combat bi taxawoon na tey parce que bëri la dëgër yomb. waaw lan dëgër de mun naa waat si yàlla ne ku wax dëgg rek te yàlla rek tax. Mm-hmm. mu gënul nekk champion gënu ko nekk champion. dëgg boo xam ne seen biir la nekk xaw ma benn jël la daa daan. Mm-hmm. ah benn jël. mais nañu waxante dëgg. lan dëgër kenn yabu ko ci làmb kenn yabu ko kon tey man bu ma nekkee ndaw teg sama bët si moom kon tey dama bëgg tamit ñu respecté ma bu ma bëreeg Lac de Guiers ko kan moo ma sañ a bañ ci lamb ah waaw léegi ñuy tuutal Lac de Guiers naa ma du mbëru lii Lac de gënoo nekk champion fii Sénégal gënoo ko nekk champion waaw man gëm-gëm boobu la am vision boobu la am te damay ñaan yàlla nekk champion si kanam waaw loolu tax moo gëm ko quoi beneen question bi ci am mooy euh, mënuma ci bañ a laal muy aspect social mhm. gis nañ ni sa mën-man demeewul noonu parce li ci nekk lépp mooy fexe ba gox bi nga bu lépp ñawul tam li ci yëpp ñaw mooy ñaari ñaari yi nga am yaa ngi koy partage ci doomu jàmm gi ak ñeneen boo dee def aspect social boobu nan lay def ci yow ndax naam nit ëpp la na la mais engagement yi ñu ci am ak yërmande bi am na ñu bëri ñoo xam ne ko lan moo la ba tax c'est lépp du waaw li ma motivé nag ba sama lépp di nekk social mooy benn jeune laa xamante ne fii laa juddoo ci banlieue bi fii laa juddoo si jàmm gën loolu nag mm. ñu nekk ay ndaw dëkk si benn commune boo xam ne ñun si commune Pikine lañ bokk ñun si digg Pikine lañ dëkk Pikine mbaaw la yem mbaaw mais ñun si dara waaw léegi gëm am benn gëm-gëm boo xam ne slogan boo xamante ne jàmm gën jàmm ci loolu mu métti ñu dëkk fii ak suñuy xarit ñu bari loolu samay xarit guddi bu jotee sax balaa ñoo lekk sax moom la may bëree xaalis xaalis man temps ono laa doon def bu ñu paree dañuy dem si mayka bi ñi lekk parce que da ngay gis ñii dañu am moyen ñii dañu am moyen te yéen ñëppay ànd dañuy solante yëre mais dama am benn gëm-gëm boo dama ko mosoon am xale bu ñuy samay xarit bu ñuy dem soirée damay dem ay mbapat mm. gëm-gëm boobu dama xam ne bëree Biafra et benn bras fu nekk foofu waaw mais damay dem su ma ñëwee dama ci amee gàllankoor damay dem fenn bëri ji mbapat bu final jot sama dañ may jam def may affaire yoo xamante ne mm. man damay tudd affaire yi métti mm. mais damay gën a amaat gëm-gëm demaat foofu si koñ boobu burewaat mais dañuy dem ba ne kii dafa ñaax jom dañ ma doon wax ne kii du ànd ak kenn moom kese gëm-gëm boobu dafa doon def leneen moo taxoon tey lu ma am rek damay def social bu ma amee bu ma gañee saabu ceeb bu ñëwee sama maam dafay jël di tibb par di joxe kër di joxe gëm-gëm boobu laa a am vision boobu laa mos a am bari yaakaar naa ne yow moom jeex. Euh, bul toppee mën nañ koo yàqloo émission parce que social moom mel noonu nit buy wax ci lu mu gëm nit buy wax ci lu mu gëm dafa am lu muy yëg li tax ma dugg foofu mooy léeg ma dem ci ay cas tourné ko nit ne ma euh, Siteu même bu fekkee mun ma accès pour jot ci moom nee ko maa ngi koy ñaanal ngir dama tëdd feebar waaye li muy dimbale nit ñi maa ngi koy yëg fi ma nekk doonte jàppale gu ma amul message moo tax toujours may joxe message nit ñi ni nañ jàppale nit ñi tane yàlla jox ci nit la ko jëlee te àdduna lépp dénkaane la lu mu la jox rek ci nit la ko jëlee muy wér muy lépp loo xam ne rek ak xaalis ak lu mu mën doon nit nag boo ko tanee dimbaloo ko bu dekkee gox bu dee yaa ko rey mm-hmm. faraay du tey ndax man ay jooy miin naa ko man maa la dàq jooy mm-hmm. xam ne mm-hmm. dafa nekk ci àll bi suivre euh, Dakar Buzz social nekk kenn ci yow li ñu boole sànq mooy social tey mais lan ngay wax waa kaaw bi ñu gën a bàyyi xel ñi néew doole te xam ne ku yàlla jox fukk de la séddale loolu waaw diaspora bi diaspora bi aw ma suñu fay xalu mi kii dama bëgg sa wax si moom parce que dama ko lay wax chaque lay def si moom te du ma ko sa hmm. koy wax ne bu succès jeexoon ku jeex sa ñaan ak yow man dama ko koy wax dama koy nëbbu quoi parce que tey nit da am say nit ñu baax mais da ngay da ngay ragal sax pour fësal ko hmm. parce que dañuy yaakaar dara moo tax wala ni nga doon dara moo tax dama ko koy wax chaque jour hmm. mu nekk koo xam ne ku baax la mais daf may woo ne ma cité dama la bëgg a man ko fàllu ma ne problème xaalis soxla ma xaalis daf may woo woo ay weeri weer ba sama yaay la mujjee woo sa naa ko ana cité man ko non man fàllu man affaire xaalis yooyu góobu ma loolu mais dañu woo rek dañu waxtaan si àdduna parce que xam lu ma la fi nga nekk dafa metti parce que nga nekk si diaspora bi di liggéey xam lu ma la famille di lay xaar ku ne di lay xaar mais suba du añ du reer mais lu mat a seetlu la suba ba réussir ñan la ñuy wax sama zaari la ñuy wax dañuy mm-hmm. joxoñ ba ramatuma mm-hmm. moo tax tey ñun man damay bëgg ku may jàpp dama lay jàpp nii mm-hmm. jàpp la parce que dañoo mun a ànd dañuy jàppande te moom gën naa dañoo mën a ànd waaw loolu laa am lu may témoin si moom waaw beneen kàddu gi beneen kàddu gi may ñëw si social bi parce que gis nañ social bi nga doon def fan yëpp ba bërki démb ma ànd ak 3 ak yeneen télé yoo xam si ak leeral ñu mhm. dem social ci àll bi parce que mhm. social bi gis nañ ne yemale ko jàmm gën yaa ngi koy yóbbu ci yeneen dëkk bala nga def kees euh, bërki démoo njaay yàggul dara nga war fa mhm. demaat am loo def ci daara jooju si te moo tax nga jël social bi yóbbu ko fu ne partout dans le monde ci réew mi rawatina ci daara yi sa digganteeg ndongo daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si daara yi te amuñu dund amuñu yëre amuñu dàll tey nga yëkkati sa àll teraanga yu bari dugal ko foofu rawatina barki dee mooy njaay li ak sa jabar waaw man loolu dama ci remercier waa Tarkinda Social Fondation parce que tey fondation yaakaar naa yoo xam nga ko foofu yombul ma ne xam nga ne xam nga ne yombul voilà ok tey yàlla daf ma daf ma natoo ba yàlla dimbale ma man sama jëm boobu ma am fondation ko mën a fondation bi nag sama jabar moom si jàppale base bi Amérique la foofu lañ ko tijjee ñu ñëw moom tamit c'est la même chose parce que dañuy toog sa jour bu may laaj yow lan moo nekk sa gëm-gëm ma ne ko man bëgg naa liggéey ngir sama famille mais bëgg naa liggéey ngir nit ñi yaa ngi dégg mais bëgg naa liggéey ngir suba du añ du reer mais ñett yi dañ ci waxtaan ma ne ko man nit dafa ma gën a lëpp mu dooleel ma ci ci biir Amérique ba yàlla dimbale ma am fondation moom tamit ma koy sant di koy gërëm ba barki démb rek dañoo toog mu dama pour papa ñu def benn at ñu jënd ay jaget ay pulweer ak dàll yu bari mm-hmm. yaakaar naa ni démb lañ ko yóbbu mm-hmm. yóbbu ko daara yi nekk kooki mm-hmm. pour yóbbu ko foofu bu jox ko daara yi foofu mais parce que seddaay bi dañ koy soxla waaw loolu yëpp pour maanaam nit koo xamante ne rek dimbale ëpp na moromam doole rek ko war a dimbale chaque jour noonu la war a demee et ñaan yàlla nit ñi geesu ndaw ñi parce que ndaw ñi dañu am solo si dëkk bi waaw dañu am solo si dëkk bi waaw ndaw nag bi nga nekkul nit ñi non gis ñi di dox rek nga ne noonu ndaw ñi ndaw ñi mooy ñi soxla ndimbal bi dimbali leen waaw ñi soxla ndimbal dañ leen war a dimbali man côté boobu laay am lu may waxee parce que tey boo xoolee tey banlieue waaye Fall dañoo soxla ndimbal gaan ñu dañoo soxla ndimbal moo tax ay sant bii nii man xaalisu làmb man dama ko soxla man bëri yëpp dañu ma war a jàppal di bëri man parce que man dam ñu ma war a dimbali dafa bëri wallaay parce que instant bii nii feeg feeg un mois man damaa war a intégré kër Fodé bi yaayam toog parce que yu bari pare la mais yooyu yëpp mbëri dañoo war a dimbali. di bëree ak man parce que man dama war di am parce que man bu ma amee damay dimbali nit ñi. Hmm. nit ñi rek moo ma ñor. parce que bu la yàlla joxee si moom dénkaat la benn pan tout de la cité loolu te noonu la war a demee chaque am na koo xam ne bu gisee cité danaa noo ñaaxul dara am na lépp sa waaye man awuma dara hmm. mais sag laay doxee mais lu ma am hmm. ñeme naa ko def si nit ñi parce que day ñëwaat si man man noonu laay dundee te gox bi daf ma gën a lépp parce que fii dangay gis koo xamante ne man am naa ay xarit yoo xam ne ba léegi seen kër wallaay seen kër dañuy teg ci mais dara du si nekk. Mm-hmm. te doo ko xam si ñoom jàmbaar mais dangay ngay gis jamono affaire yi ñu jóge nii. Covid bii ñu jóge nii. wallaay ñoo xamante ne man ñoo ma doon jëndal essence ñoo ma doon mais dangay ñëw ñu lay wax say soxla. yoo mm-hmm. xam ne seen dund mosuñu la wax ne dama am lii wala lële sa dund ñoo la mos may mais sa waay métti na mm-hmm. dafa te métti bi nag boo koy wax dañuy yaakaar ne sax da koy wax pour en dehors dafa am koo xamante ne da koy booy boycotté wala dafa am man li may wax mooy Sénégal Sénégal il est temps ñu jàppalante man foofu gëm-gëm boobu laa dégg nga deuxième bi mooy démb li tamit bëgg naa tamit su ma si wax wallaahi kenn ku si nekk mu dégloo ma xel bañ maa dégloo xolam dégg nga li am démb Sonko Kër Massar rafet na baax na rafet na baax na ñaari yoon laa wax ok mais dafa am loo xamante ne luy raam loo xamante ne baaxul suñu ñun banlieue bi ñun laa de ñun banlieue bi public volontaire nga xool balcon bi péage bi ngay jaxaar péage moo ne yëg nii man suma kër église bi kese moo dox sama diggante péage bi mais covid bi ba mu ñëwee coow lu fi amoon sa waay man fii dama doon wàcc lu ne laay jàngandeel fa booy nekk fii dama leen di tere hee eh, def nii coow li parce que coow li bu amee ñi yàq ñoo ëpp que ñuy defar. dafa am ñoo xam ne dañuy dogalee nit. day gis si péage bi pour jël oto jàmbur. baare télé bi nii mu def nii. lu ko tàmbalee fii ba fële. kenn du dem te waaye gis nga sa waay man maay wàcc fii topp booy mais booy ngay topp yëpp amul booy boo ciy xam doo ci xam ma demb doo ci xam ma paate. léegi ñan la ñuy wax ñun banlieue ñun banlieue bi la ñuy wax léegi xoolal li yàqu fii nii côté bii autoroute bi sama xarit yi ay ñoom abu ñaasi ñoom ñëpp dama leen di ñaan intervention ne leen dem leen foofu mais ku mel ni dembaka dembaka dembaka bu dul loolu man man EDK dañ koy dajji parce que Gris Bordeaux moom mooy dégg dama bàyyi ma fen moom lañ fa yóbboon pour mu jàppale ko mais Gris Bordeaux dafa mujjee xaar di daw bàyyi dafa ma woo téléphone ni ma Siteu fii sa zone la dama bëgg nga ñëw jàpp si dama ko fàtte mukk mm-hmm. benn rax dembaka moom la ñu ma booleel mu ne ma grand nga jàpp si du ma ko fàtte mukk bu mm-hmm. ne ma naam ma ne ko lu ma ci naa zone bi ñi fi nekk ñëpp xam leen dama leen gis wax ak ñoom jour boobu la yëkkati jox ma du ma ko fàtte mukk xaw ma six cent mille xaw ma ma ko noonu laa ko joxee booy ci lendemain bi mu woo ma mun ma booy gisuma fi ay booy de ma a ko grand mu ne ma naa ma ko leen di xamal naa ma ne ko fii benn booy dafa ñëw parce que loolu la suma responsabilité hmm. mais nit du fa garre nit du fa taxaw hmm. su ma ko waxee loolu parce que gisu kenn ku fa garre hmm. mais pour moom ma ne ko suba si mu ne ma mais xaalis bi ñu joxoon ma ne ko ni nga ma ko joxee noonu laa ko joxee booy yooyu pour wala ñooñ ci def ñaawtee fii dañoo amul dara parce que tey boo fekkee ne da nga yeewu sa yaay bi la jur sa yaay bi la jur di ñaxtu ne junni laa bëgg faadal te yow amoo foo ko jëlee mais Fadal bu amul xel dem defi ñaaw def loolu nag il est temps mu dagg lan lay daggee mooy dañuy jàpp hmm. créer ñooy entreprise ñu liggéey dimbali ñu suñu jeunes yi fii da ngay gis ay xale yoo xam dañuy jàng bu am diplôme mais quelque temps fii lañ leen di fekk ramasse si koñ bi nga ñaaw rek mel ni booy bi rek ñu jël la yóbbu la kaso non sérieux yaa ngi dégg te yàlla xam na ne li nekk ci yow xamuñu ko yaa ngi dégg hmm. may wax président Macky Sall yaa ma laay waxal di koy wax ne ñun suñ dëkk bi ñun lu dul jàmm bëgguñu ñun jàmm lañ bëgg mais affaire Sonko bi mais na ko baal mhm. na ko baal ngir ñun ndax parce que tey lu am ñun dañuy sonn mhm. bitig bii nii ñu jàkkaarloo mhm. li ma fi jënd ci moom si ay ceeb mënu ma laa wax nu mu toll mais bi ma jeexalee li ma ko lekk war na mat ay huit cent mille jëm te loolu yëpp si ay doomu aadama dugalu ma ko sama kër te loolu ko fi moo tax mu am kon tey ñun lii di raam nii lii di raam nii di ñëw su dalee suñu kaw sa waaye c'est la même chose ñuy dund ci ñoom du ñu xam coono yu ñuy dund te ñun dañuy sonn di ñaan Sonko lu muy def wala lu muy wax baax na kenn waxu ko ne baaxul mais bu mu ci boole coow ñun xeexuñu xuloowuñu dégg nga te man gis nga jàmm gën gi ma dëkk lu ko tàmbalee Fass Mbao ba Sibs man sama responsabilité dama koy jël mm. fii ku fi xeex wala nga ci xuloo loolu dama ci rayante ak yow bañu ma si dara man Siteu parce que tey bu méttee sama kaw lay njëkk a métti dégg ma ba bëgg nag képp koo xamante ne ak gox boo mën a nekk nga jël say responsabilité faral ku la neex faralal ku la neex mais ñun xeexuñu xuloowuñu parce que bu ñu xeexee xuloo suñu yaay la ñuy gaañ suñu tante yi lañuy gaañ homme de tenue yi jàppanteeg ñun suñu biir kër yi la ñuy dëkk kon il est temps loolu mu jeex nañ politique ñun d'accord nañ politique mais ñun du duñu ay politiciens te ñoom bu ñuy xeex ñun la ñuy xeexlu mais tey su ma waxee Fadel bi wax ñu ne fan la faral man faraluma kenn man population bi naa fi nekk dégg ma man doomu banlieue laa xam li banlieue di dund ñu am suñuy xarit yoo xam ne dañuy dem usine sax pour ñu liggéey pour ñu liggéey wallaay dañuy tax dang-dangi ba sonn bu ñu demee ku ci gaañu nañ la nax ba nga faju boo fajoo ñu dàq la mais boo liggéey ay 2500 lañ lay fay 2500 lañ ci mën a paas da nga ciy mën a añ da nga ciy a joxe dépasse yow kañ nga réussir ah te yow léegi yow yaa ngi rêvé benn cité boo xam ne yaa ngi koy gis mu toog ni yaakaar dafa yor lu jëng nga bëgg a mel ni moom mais da ngay tax nga doxee noo xam ne waroo ko doxe wala ngay daw loo xam ne waroo ko daw nañ dimbalante man loolu laay wax président bu dee moom lii mun na si teg tànkam mu teg si tànkam suñu kilifa diine yi mais mu jàppale ñu ñoom tamit ñu wax yaa ngi dégg parce que tey boo xoolee valeur bu ñu sax amatuñ ko te boo xoolee ay xale yu ndaw ngay gis ñu dépassé suñu kilifa diine yi. Mm. pour lan te ñun ñu joxe suñu njéemal ne àdduna nga laay rek loolu wax ñu def loolu ñu diggal ñu def loolu ñu tere ñu bàyyi. fii ku jéebalu sa boppu sëriñ boo feebaree boo demee hôpital jéebal sa boppu médecin. lu mu la wax nga def ko. Mm. nee su ma situbee ma piqûre la nga def ko. Mm. mais kon tey lu tax waruñu delluwaat suñu xel jàppalante tey banlieue bi fii banlieue bi ndaw yi nga fii gis yëpp ñuy dëgër bopp amul ndaw bu ma sañ a wax ne ñi ma mën a jël yóbbu la si àll bi pour nga dem bay ji mais nañu ñu ay tool ñu jël booy nga xam ne amuñu métier ñu yóbbu leen si àll bi ñu dem bay man gëm-gëm boobu laa am ñun foofu lañ toll ñoom loolu la ñu war a politiquer ak ñun bu subaa ñu mën a am fier jël suñu carte yi dem xool leen voté leen mais pas ay dem leen ngeen rayante gaan ñu rayante wuñu ñu loolu dawul suñu yaram waaw man rayante wu ma de rayante wu ma de jàmm gën fii wóor na sulaay ko ko bëgg a taal dinaa jot ak yow waaw ma bëgg nag képp koo xam ne porteur de voix nga nga jël responsabilité koñ bi nga dëkk xam ne loo nekk wala loo doon mbooloo bi nekk sa ginnaaw dëgg sa koñ ñoo la ko def ñoo la ko may te bu méttee na gaan ñi tëju seen biir kër day bari de kon nañu am gëm-gëm ñun gëm suñu bopp xam ne liggéey rek moo ñi may leneen du ñu may suñu àdduna lu dul liggéey man côté boobu laay waxee lii nag dama waxoon dama koy wax bu dee wax naa si loo xamante ne lu ñaaw la maa ngi jégalu maa ngi dégg bu ma si waxee loo xam ne lu man la xamal ne ñëpp la waaw loolu am loo xamante ne tënk naa ko wax ko su amee leneen la yi nga xam ne dafa jotoon a am lool waaw di leen ma saw sa sawaay adduna hmm. la adduna buy waaj jeex hmm. lu ne mooy ñëw bu amul gëm-gëm amoo sañ-sañ sa bopp yow da ngay sax nañu am gëm-gëm booloo xam ne lu ñëw yàlla la lu ñu dal tey ñu éviter ko

jaajëfal laaj bu baax a baax a baax parce que des mm-hmm. man mi nga xam ne dama teel a ñàkk papa xaw ma mais damay ñëw ci côté lamb <coughs> dañu gis ñu bëri nee na Siteu day topp social yi day topp malade yi day topp ñu yorul dara ba talut a entraîné parce que dañu gis ne lamb ji ñi la ci suuf bëriwul da ci côté évolution maanaam ci doole dañu gis des fois sax amoo combat doo rey sa bopp wala duñ kenn gis benn développement bi ci yow lan ngay wax ci amateur yi nga xam ne dañuy wax ci loolu. waaw amateur yi maa ngi leen di parce que tey dama nekk mbër boo xamante ne ñun fii gox bi ñu nekk ñun dañoo am exemple yu bari naa benn clan boo xamante ne Siré Sera si tudd clan boobu ba léegi dama koy xalaat ko di ko tafaagee di jël si fii jàmm gën ñun ñëpp a baaxu guddi boobu dafa dajale si mbooloo mu doon jël si ko ni da ko bëgg a yóbbu ngir nuróo bu nuróo nag dafa gay ñu gis fi ay ñoom isaapu yi gis fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne si gox lañ dëkk mais benn slogan moo daw dañ naan mbër bu réussir faalewul kenn di jëntiwul kenn boppam rek moo ko bi may am kër ñu bari dama leen di dégg ñu naan cité da nga waroon a dem ut kër feneen ndax nga noppale ko ndax parce que xale yi fii man ku ma sonal fii wallaahi kenn du ma sonal man maay bëgg sañu sonal parce que tey su fekkee ne tey dama siiw man su ma xewlee ñëpp ñëw mais bu ma paree da si laa war a dem jël sama temps dem di entraîner mais damay entraîner dama si boole nit ñi dem dëkk ak ñi dugg seen biir ku commencement li ma doon dundee loolu laay def chaque jour moo tax ma dëkk jàmban bu léegi mais damay entraîner chaque jour man damay entraîner chaque jour damay entraîner bu ma demul saal maay diim mais sa waay bu la nit ñi yaakaare nooy def mu ñëw lu tul dimbali leen mm-hmm. man weer rek bu ma ko jógee jàmm gën jàmm gën dañu koy yëg mm-hmm. da gis ay ndaw ñoo xamante ne dañ leen di yóbbu prison te duñ def dara ngay xool ni rek neexu la rek nga ko kaso nekk am gis jeunes yoo xamante ne dañuy jël alali jàmbur boo leen laajee lu tax ñu jël alali jàmbur dañ naan la gaañ du ma la fende dañ la koy wax nii nga dégg ko dañ naan la du ma la fen deret tuur moo gën gàcce parce que ñoom dañuy juddu si kër xamuñu métier amuñu benn métier mm. mais sa waay boo man bu ma toogee sama yaay dem si guddi muy ñaxtu naan man de bu ma amoon deux mille cinq cent suba ma xëy lii laay dem jënd pour xale yi lekk pour def nii sa waay ngay dégg loolu. Mm. si biir noo ko nga koy dégg. yow boo xëyee nga def boo amul dara da ngay dem sàcc da nga agressé nga gisee nit ñoo am man damay am combat man damay jël sama xaalis di ko def si ñoom pour nit ñooñu ñëpp kenn ku si nekk pour nga mën a xam lu la. nga satisfaire au moins nga bàyyi bu bëri pour dem la mel ni ñu ne yaakaar na yow da ngay fobiliser booy. gaa yi gaa yi yi gaa yi yëpp lii yëpp lii boot si ginnaaw moo bari. man damay dund coono yu métti ay coono yu garaaw laa dund man bi ma nekkee booy laa commencé jël sama responsabilité am na ñoo xam ne maa tax ñu bàyyi banditisme man maa leen taxal jabar. du ma ko cité ku mel ni Ibra Dieng kooku ab ma ne xale ba léegi dama ko tax bu ñu doon jàpp kaso sax dama ko doon wax maa ngi ñuy ànd dem mais daf koy dóor dóori métti pour mu mun a dem rek ko dund fii am lu ma man bi ma amee 15 ans lan sama papa gaañ mais affaire yu bari fii voilà nu ma la man sama gox ma ma mos a ñor voilà man dama mos a bañ koo xamante ne di jël alal jàmbur wala ngay def loo xamante ne ah du dëgg man dama ko mos a bañ sama laa mais dama mos a jaande sama àdduna ne di dee njàmbaar moo lay rey sa da ngay téye quoi. mu dama a ñoo tax may